Serigne Abdou Wahab Mbacke Serigne Abdou Wahab Mbacke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1918 ci dëkk boobu nag di Daaru Salaam Duyooli ci dëkk boobu nag la feeñe jamono nag ci atum 1918 muy doomu soxna Aminta Gaye ak Serigne Abdou Dia Mbacke Duyooli am na nag ñu mu bokkal nag soxna Aminta Gaye ak Serigne Abdou Dia Mbacke Duyooli ñu mën caa ràññee nag soxna Faali Mbacke bintu soxna Aminta Gaye bintu Serigne Abdou Dia Mbacke Duyooli soxna Magat Mbacke bintu soxna Aminta Gaye bintu Serigne Abdou Dia Mbacke Duyooli soxna Faati Mbacke bintu surtout soxna Aminta Gaye bintu sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli sëriñ Moustapha Mbàkke ibnu soxna Aminta Gaye ibnu sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli ak moom sëriñ Abdou Wahab Mbàkke ibnu soxna Aminta Gaye ibnu sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli juróom nag la bokkal waajuru góor nag ak waajuru jigéen ak moom nag muy juróom benn laataa ñuy xuus nag ci doomu sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli bii di sëriñ Abdou Wahab Mbàkke ñu wax leen nag waajur yi ko meññ nag ñoom ñooy ñan waajuróom wu jigéen wii nag di soxna Aminta gay mook sëriñ Moodu gay jëmoo ñoo bokk nag wenn waajuru góor waajuram wu góor wi nag di sëriñ du Dia Mbàkke Duyooli doomu sëriñ Mbàkke soxna la sëriñ Mbàkke soxna doomu sëriñ Abdou Xaadar Mbàkke la sëriñ Abdou Xaadar Mbàkke doomi Maam Balla Aysa Mbàkke la moom sëriñ Abdou Waxaam nag waajuram wu góor wi nag di sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli maamam nag sëriñ Abdou Xaadar Mbàkke mi nekkoon taawu Maam Balla Aysa Mbàkke nag lañ ko tuddee moom itam nag ci jàmbaar yi toppoon nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag la bokkoon ba liggéeyal na Seexul Xadiim nag lu bare bare bari moo sanc nag dëkk bii nag jamono di daaru salaam du yooli njaboot gii mu bokkal waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen nag moom sëriñ Abdou Wahab Mbàkke ngir xamale leen ak ñoom nag ñoom ñooy ñan doomu ndayam ji nag di soxna faali Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Elaaji Tàkko Mbàkke bu maam Cheikh Anta Mbàkke nag lañ ko jébbaloon benn bant itim nag la am ak sëriñ Elaaji Tàkko Mbàkke muy sëriñ As Faali Mbàkke naaw bu soxna faali Mbàkke nag jógee ci loxoy sëriñ Elaaji Tàkko Mbàkke bu maam Cheikh Anta Mbàkke lañ ko jébbaloon nag ku ñuy wax sëriñ Abdou Bousso bi nekkoon nag chef de village Bousso nag borom barab bi la mook sëriñ Abdou Bousso nag aafe nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag maam ja Bousso soxna Faati Bousso soxna Astawaalo Bousso ak soxna Awa Mariama Bousso doomu ndayam ji nag di soxna Màggat Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Yaxya Bousso nag lañ ko jébbaloon waaye mook sëriñ Yaxya Bousso nag amuñu nag ak njaboota doomu ndayam ji nag di soxna Faati Mbàkke jotta dem kër laataa muy dem kër nag la génn àdduna doomu ndayam ji nag di sëriñ Moustapha Mbàkke laataa muy samp kër nag la génn àdduna fam doon jànge alxuraanul karim nag ci njaareem ci loxoy sëriñ mbay bu sa param foofu nag la génne àdduna bi muy jàng foofu nag moom sëriñ Moustapha Mbàkke ci njaareem nag ci loxoy sëriñ mbay bu sa param boobu nag loolu ñu tudde ak dex nag ci diggante kër gu mag nag ak njaareem loola itam nag ba nëgëni nag ndox mooma ma nga fa woon mu am benn tàkkusaan nag mu demoon nag doon fa sëmb bi muy sëmb nag ci dex googu nag fa la labee biir dex googu itam nag la génnee àdduna ñu yëgal ko sëriñ mbay bu sa param nag mi ko doon jàngal bi mu ñëwee nag ba xool doomu sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yooli bii la gis ne daal génn na nag àdduna ci bi génnee àdduna nekkoon sax ci njaareem googu nag ci loxoy sëriñ mbay bu sa param sëriñ mbay bu sa param itam nag bindoon na ab lettre nag sëriñ abdou wahab mbàkke ngir mu joxal ko ko nag waajuram nag sëriñ abdou ja mbàkke du yooli di ko wax itam nag rakkam jooju nag noonu mu génnee àdduna foofu nag ci njaareem soo delloo nag ci lettre arab nag bi sëriñ mbay bu sa param nag bindoon sëriñ abdou wahab mbàkke di ko yëgal nag génnuk àdduna rakkam jooju nag di sëriñ moustapha mbàkke booba nag sëriñ abdou wahab mbàkke mi ngi ci loxoy sëriñ mouhamadou dem nag di jàng nag xam-xam nag ci njaareem sëriñ Mbay Buso bi laataa muy nuyoo nag la mu njëkk a tàmbalee lettre ba mooy indi nag aayab alxuraan boobu nag suñ boroom nag di xamal ne lépp nag dana fi masa bàyyikoo nag ba mu des nag moom ci aaya alxuraan boobu itam nag la sukkandiku bind nag sëriñ Abdou Wahab Mbàkke nag lettre bi ginnaaw kàddu yooyu nag mu ubbee lettre bi lay doog a nuyu nag sëriñ Abdou Wahab Mbàkke ak mbooleem nag ñi nga xam ne nii itam nag danañ gis lettre bi fu nuyoo nag gën a sellee nag ci ab nuyoo doog a wax nag sëriñ Abdou Wahab Mbàkke nag maa ngi lay nuyu yow Abdou Wahab Mbàkke yow mi nga xam ne nii nag ab soppe nga nag ab xarit nga te boroomu xam-xam nga itim nag sa jooju nag di sëriñ Moustapha Mbàkke suñu boroom nag dogal na ci moom nag la mu dogal nag ci moom keroog daal ci tàkkusaan daal la ànd ak nag gone nag gu mel ne moom ñu dem nag ci loolu ñu tuddee ak dex dox nag suñ digganteeg nag dëkk bi na nag ci ndox mi nag ngir sangu waaye nag dafa mujj des nag ndax daa lapp bi ma yëgee loolu nag laa buur nag fi ma newoon dem nag di ko seeti bi ma eggee nag laa fekk nag ñu génne ko nag ci ndox mi waaye xam naa ne daal dafa faatu lii nag na nga ko yëgal sëriñ bi lettre bi nag maa ko bind xaw ba xam nag egsi na nag yéen nag waaw nag wala déeta ñu teelu nag lettre bu sëriñ Mbay Buso Param nag bindoon ci bi muy jàngal nag sëriñ Moustapha Mbàkke nag mi bokk ak sëriñ Abdou Wahab Mbàkke moom sëriñ Abdou Ja Mbàkke Duyooli waajur wu góor ak waajur wu jigéen dem demoon nag doon sangu nag ci loolu ñu tudde ak dex fa nag lab bi sëriñ Mbay Buso Param nag di ko yëgal nag sëriñ Abdou Wahab Mbàkke nag mi magam lettre bu arab nag la ko bind ngir nag sëriñ Abdou Wahab Mbàkke nag yëgal ko sëriñ Abdou Ja Mbàkke Duyooli ñu teelu nag lettre bu arab nag bi sëriñ Mbay Buso Param bindoon sëriñ Abdou Wahab Mbàkke ngir nag di ko tàgge nag rakkam jooju nag di sëriñ Moustapha Mbacke kullu shay'in haalikun ilaa wajhihi amma ba'du fa usallimu alaykum xaayatan wa usallimuka ayyuhal hibbu hibbul alxillu abdul wahab al mbakki saahibul adib saxiirukum muhammadul Moustapha Mbacke xad qadarallahu tabaraka wa taala maa qadara ali saalikal yowmul amsi saaba maha xulaamin mislahu fantalaxa ilal bu'ayr alati jara baynana wa bayna alxarit falama wasala ilayhi huwa qad daxala fiihi lil xusli xariqa fiihi falama bulixtu an saalikal xabar naatu ilayhi wa wajatu maxrajan mutawafan fa alim xaasa seex ma araf annahu wasala ilaykum am la wasalaam alkaatibu Cheikh Mbaye Bousso Param ginnaaw lettrul sëriñ Mbaye Bousso Param boobu sëriñ Abdou Dia Mbacke Diyooli nag miy waajuru sëriñ Moustapha Mbacke daa bindaat lettre nag doomam sëriñ Abdou Wahab Mbacke di xamal nag sëriñ Abdou Wahab nag ci biir lettre bi ginnaaw bu mu ko nuyoo nag mi ngi koy waxal ne nag bindal nag ilimaan mu yëgal ko nag alaaji bind ko Mbacke itam nag ak Daaru Salaam nag am na ndaw nag lu fay jóge tey dana ko yëkk na nga wax nag Mamadou Ndiaye xaar mu wutal ma nag ñaari def nag ci warga Mamadou Dieng itam nag ci njaareem na nga ko wax itam nag mu wutal ma ñaari kiloy suukar ak warga nga indaale ko da nga wax nag sa yaay su tàkkusaanee nag ngeen ànd ñëw ndax nag ñuy jaale si man Abdou Dia nag maa ko bind ñu teewlu nag lettre bu sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli bu mu bindoon doomam nag sëriñ Abdou Wahab Mbàkke di ko wax nag ñu am wàccaay nag mën a ñaanal nag rakkam jooju nag di sëriñ Moustapha Mbàkke ñu teewlu ko salaamaaleykum ila yow Abdul Wahab bind ko ilimaan mu wax ko alhaaji bind ko daaru salaam ak Mbàkke saaliwu am na ndaw lu fay jóge tey naa ko ko Amadou Ndiaye xaar mu wutal ma ñaari kilo suukar ak lëf ci warga ak mu Amadou Dieng njaareem ñaari kilo suukar ak war ga ndax gan ñi te wax si yaay bu tusubaaree ngeen gontu ñëw ngir ñuy jàll si suukar si toppatoo ko àndaale ko alkaati bu Cheikh Abdou Dia Mbacke njaboot googu ñu leen tuddal nag tañ bokk ak sëriñ Abdou Wahab Mbacke waajuru góor nag ak waajuru jigéen njaboot yooyu ñu am nag ñooy jarbaati nag sëriñ Abdou Wahab Mbacke yi bi mu matee dal alxuraanul karim moom sëriñ Abdou Wahab Mbacke turee ndula nag la ko waajuram nag yóbbu woon turee ndula googu nag la jàngee alxuraanul karim nag ba mokkal ko ndula nag lañ ko yóbbu njaareem ci loxoy sëriñ Mouhamadou Dem nag bu njaareem ginnaaw loxoy sëriñ Mouhamadou Dem bu njaareem nag moom sëriñ Abdou Wahab Mbàkke la ñibbisi nag ci waajuróom ci Daaru Salaam du yooli waajuróom nag téye ko fa nag ab diir ginnaaw bi itam nag la ko sampal kër boole ko soxna suñuy wax nag soxna Assu Silla doomu sëriñ Alioune Xayta Silla nag la mu soxna Assu Silla itam nag am nañ ak njaboota ñu man caa ràññee nag kam faye woon sëriñ Abdou Xaadar Mbàkke mu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ak sëriñ Moustapha Mbàkke nag ñii mu faye nag rakkam nag sëriñ Moustapha Mbàkke ak soxna Maam Buso Mbàkke yoraatoon na baneen soxna nag moom sëriñ Abdou Wahab Mbàkke muy kuñ doon nag soxna Faati Juuf waaye moog soxna Faati Juuf nag amuñu nag ak njaboota soxna Fat Juuf moomu wóllëreem nag sëriñ Babacar Ngom nag moo ko ko jébbaloon sëriñ Babacar Ngom itam nag ci jàmbaari sëriñ Abdoulaye Yakhine Diop nag bu Cees nag ci la bokkoon ku wóllërante woon nag sëriñ Abdou Wahab Mbàkke nag la woon ba tax na nag moo ko jébbaloon nag soxna Faati Juuf moomu soxna Faati Juuf moom nag bi mu nekkee nag ci loxoy sëriñ Abdou Wahab nag ba mu génn lañ koy doog a jébbal nag maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke ndaamal daaru mu am ak sëriñ Ousmane Mbacke Noreyni sëriñ Modou Kara Mbacke Noreyni mii nag ñëpp xam ñaari soxna yii nag la amoon njaboot gii ñu leen tuddal nag la ci am bi mu toogee foofu nag ab diir la ko waajuram nag jël yóbbu ko nag ci dëkk bu ñuy wax nag kër Amari Kumba ñu gën koo xam nag ci Mérina Gueye ci taalibeem bu ñu doon wax nag Amari Kumba moom sëñ Abdou Wahab nag mu wéy nekk foofu nag ci ndigalul ko fa suuf nag mu am fa itam nag kër fa mu nekkoon nag di fa bayee moom la tudde woon nag Taysiir ci dëkk bii nag di kër Mari Kumba nag la nekk ci suuf sam fa amoon nag tu tudde woon ko Taysiir ba ci atum nag mu génn àdduna suuf sii mu amoon nag ci kër Amari Touré doom ji nag di soxna maam Busa Mbàkke mi nag fa la feeñ a jamono suuf soo sa itim nag mujj na jóg nag ci ay loxoom fa kër ga tolloon nag fa la école ba nekk nag jamono jii am na itim nag ay góor yàlla nag yim àndaloon foofu nag di liggéey nag ca ba ko fa sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli mi waajuram nag yóbboo ñu mën caa ràññee nag sëriñ Bas Guèye sëriñ Cheikh ñeneen ak ñeneen nag ñu mu fa nekkaloon ginnaaw bu mu fi bàyyikoo nag ci atum 1953 doomam ji mu fi bàyyi woon nag di sëriñ Moustapha Mbacke nag ci juróomi at nag la toll sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly nag dafa fob nag baneen doomam nag yabalaat ko mi sëriñ Abdou Wahab bi sëriñ Moustapha Mbacke bi di dund itam nag sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly nag mi waajuram Cheikh Abdou Khadir Mbacke itam nag la ko féetale woon nag ci doomu cheikhul xadim yi ginnaaw bu mu làqoo nag ci 1953 la fabaat nag baneen doomam nag bu ñuy wax sëriñ mbàkke ñu gën koo xam nag ci bàyyi sëriñ mbàkke abdou dia mbàkke duyooli di xamal sëriñ abdou xaadir mbàkke abdou waxaab dem na waaye sëriñ mbàkke nag mu ngi nii ci dëkk boobu nag di kër amari kumba ñu gën koo xam nag ci mirina géey suuf sam fa amoon nag di taysiir amoon na itam nag ay kóllëre nag ak ay góor yàlla nag yoo xam ne nii itam na ci tund woowu nag lañ dëkkoon dañ nekkoon nag wóllëre sëriñ abdou waxaab mbàkke ñu mën caa ràññe nag sëriñ muudu ja woon sëriñ Alioune Ka Mbaleen taalibe sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag la woon sëriñ Abdou Ummi Mbacke ci dëkk bii nag di kër Magey Ndaw doomu sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbacke Xabaan nag la woon sëriñ Moodu Faati Dia ci dëkk bii nag di Bayti Dia sëriñ Moodu Cheikh Mbacke te ab xalifaam nag di sëriñ Baara Mbacke bu mbakke Bawal ak sëriñ Mbay bu sa Paraam sëriñ Cheikh mbakke Gaynde Fatma sëriñ Moustapha Mbacke muy xalifab sëriñ Abdou Wahab Mbacke nag nettali na ma ne maamam ci sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag nga wax ko ko mook sa waajur wa nag la séqoon nag yaatu na lool lool lool sëriñ Moustapha Mbacke itam nag nee na ma mas na dem nag ci sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bindoon ko ab lettre nag ngir am nag lu mu doon sàkku nag ci moom bi sëriñ Cheikh jàngee lettre ba pare daa fabaat lettre ba nag sànni ko ko la nekkoon nag ci poosam nag ci xaalis moom nag la ko jébbaloon ngir nag di dëggal nag lii ko maamam waxoon nag soxna mas na dem nag ak ngan ci ku ñuy wax sëriñ Alioune Mbaleen bi ñu toogee ba tàkkusaan nag ca ngan googu nag sëriñ Cheikh Mbacke nag di fa doog a ñëw sëriñ Aline Kane mi itam nag nangul woon a yàq nag bernde yi bi sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñëwee nag mu di ko xamal ne kay mi ngi fi woon la doon xaar nag nga ñëw ngir nag ñu doog a a yàq nag añi sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag bisub keroog mujjul eggale ngan gi daa xamal sëriñ Aline Kane mii damay mujj continuer nag dem bàyyi nag sëriñ Abdou Wahab mii nag mu doon gan gi taxoon na nag sëriñ Aline Kane mbaaleen mujj fonk nag sëriñ Abdou Wahab Mbacke ba yemaliwu koo kenn ndax kàddu muy gaynde Fatma yooyu moom doomu sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli bi nag fanweeri at ak juróom nag la dund ñaari soxna itam nag la masa dëkkoo muy soxna Asu Silla soxna Asu Silla mi itam nag mu jur ak njabootam ñu mën cee ràññee sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke di faye woon nag doomu Cheikhul Xadim ba sëriñ Moustapha Mbàkke nag di ki ko wuutu soxna maam Busa Mbàkke beneen soxna bi mu yoraatoon nag mooy soxna Faati Juuf mook soxna Faati Juuf nag amuñu nag ak Xaadir Mbàkke moo nekkoon nag ab taawam doomu Seexul Xaadim bi nag la ko faye woon waaye guddul nag aw fan doomam jii nag di soxna maam Busa Mbàkke bi mu matee dem kër lañ ko jébbal nag sëriñ Seex Roqaya Silla mook sëriñ Seex Roqaya Silla nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdou Lahat Silla sëriñ Abdou Xaadir Silla ñu gënoon koo xam nag ci sëriñ Jiili Silla ak sëriñ Abdou Samad Silla bi soxna maam Busa nag jógee nag ci loxoy sëriñ Seex Roqaya Silla nag sëriñ Abdou Samad Buso moom sëriñ Mor Roqaya Buso mook sëriñ Abdou Samad Buso nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee président sëriñ Cheikhouna Bousso sëriñ Abdoul Khoudous Bousso sëriñ Saliou Bousso Cheikh Mourtada Bousso sëriñ Fallou Bousso ak sëriñ Modou Mahfous Bousso doom ji nag di sëriñ Moustapha Mbacke rakkam jooju mu bokkal waajuru gu góor ak waajuru jigéen nag la ko duppee njabootuk soxna maam Bousso Mbacke googu nag ñooy lenn nag ci sëtti sëriñ Abdou Wahab Mbacke yi mu nekkoon nag ku góorewu nekkoon itam nag ku bëggoon nag lu baax nekkoon itam nag ku set nekkoon itam nag ku silwiise ba tax na nag képp nag ku masaa gis doomu sëriñ Abdou Dia Mbacke itam nag amoon na fa nag ay kóllëre ku bari itam nag ay turandoo la ci tundu kajoor woowu Abdou Wahab yi nag ña nga fa te moom nag sëriñ Abdou Wahab Mbàkke nag doomu sëriñ Abdou Dia Mbàkke duyooli bi nag lañ leen tuddee jaxasoo woon nag sëriñ Abdou Xafoor Mbàkke la moom sëriñ moo Moodu Maamun Mbàkke nag bu maam Cheikh Anta Mbàkke nekkoon nag ci dëkk bii nag di Touba Toul sëriñ Abdou Xafoor Mbàkke nag bindoon na lettre nag sëriñ Abdou Wahab Mbàkke di ko nuyu boole kook am nag lu mu koy laaj di ko wax itam nag ca lettre ba nga nuyul ma nag sa waajur nag sëriñ Abdou Dia Mbàkke duyooli waaye xafoor boobu nag ak sëriñ Abdou Wahab Mbacke ñoom ñaar nag seen mbiri bopp nag la woon ñu ngi jéggulu nag ci ñàkk dégg nag gu ngeen ñàkk dégg nag lettre bi man gis naa lettre ba mu nekki nag ku jaxasoog Cheikh Mountakha Mbacke mi toog nag toogaayu Cheikh Mamadou Bachir nag ak Xaadim Rasul nag jamono jii sëriñ Mountakha Mbacke saa bu ko njabootug sëriñ Abdou Wahab Mbacke nag nuyoo mu leen di xamal ne nag man ak seen waajuroo nag dañoo jaxasoo woon bokk na nag ci ñi ma njëkk xam nag ci doomu sëriñ Abdou Dia Mbacke du yool yi am na benn bis nag may jànge alxuraan kayal ma bëggoon nag alxuraan nag bu ma jànge ma doxe mbul kayal nag ba daaru salaam du yooli fekkoon fa nag sëriñ Abdou Dia Mbàkke du yooli bi ma ñëwee itam nag mu jox ma kaamil boo xam ne nii daal ab naar nag moo ko bindoon booba itam nag sëriñ Abdou Wahab Mbàkke itam nag la ma booleel ngir nag mu berndeel ma moo tax it nag relation bu yaatoo yaatoo yaatu daal laa am ak sëriñ Abdou Wahab Mbàkke boobu sëriñ Muntaqa Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Basir itam nag bindoon na lettre nag sëriñ Abdou Wahab Mbàkke soo delloo nag ci lettre sëriñ Muntaqa Mbàkke bi sëriñ Abdou Wahab Mbacke ginnaaw bu mu nuyoo moom sëriñ Mountakha Mbacke nuyu nag sëriñ Abdou Wahab Mbacke mi ngi koy xamal daal yow Cheikh Abdou Wahab Mbacke man Mountakha Mbacke nag maa la bind nag ngi lay sant lool nuyul ma nag sama waajur woowu nag di sëriñ Abdou Dia Mbacke nee ko itam nag maa ngi koy sant lool nuyul ma nag sëriñ Saliou Mbacke nuyul ma nag sëriñ Mahmoud Mbacke ñu teewlu nag lettre sëriñ Mountakha Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Basir bu mu bindoon nag sëriñ Abdou Wahab Mbacke asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Cheikh Abdou Wahab man Mountakha Mbacke maa lay nuyu lu bari bari lool te di la sant lu bari lool nuyul ma Baye Abdou Dia lu bari lool nuyul ma Serigne Cheikh Mbacke ak Serigne Mahmoud ak soxnaam Cheikh Abdoul Wahab fi daari Cheikh Abdou Dia Mbacke gis naa itam nag ci kàggoom lettre bu mu bindoon magam nag Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Abdou Dia Mbacke di ko laaj itam nag xew-xew yi nga xam ne nii nag moom moo xew nag du yooli ak xew-xew yi nga xam ne nii itam nag moom moo xew Touba loolu itam nag li ci Serigne Abdou Wahab Mbacke nag jublu woon mooy foofu mu nekk nag ci kër Amari Kumba dafa sori loolu pare lii xew Touba nag ak duyooli nag dana ko rëcc saa su ne itam nag bëgg na lii xew nag ci dëkk yooyu nag mu di ko xam ndax itam nag ci yoon wi la bokk te itam nag daa war a xam moo tax nag lettre boobu mu bindoon magam nag sëriñ Saaliwu Mbàkke mi ngi koy laajaale nag xew-xew yi xew nag ci bi nag di Daaru Salaam duyooli ak Touba di ko wax itam nag mu nuyul ko nag mbooleem njaboot gi la ca des nag ca lettre ba nag seen mbiri bopp la gis naa itam nag lettre itam nag bu ko sëriñ Mbay bu sa param itam nag bindoon ci koo xam ne nii nag daa am nag yi fi jàmbur nag yu mu jëloon sëriñ Mbay bu sa nag di ko xamal ne kooka daal nañ ko suturaal nañ fexe itam nag ba bu kenn xam nag soo ko waxul nag yow Abdou man itam kenn du ko xamee nag ci man la des nag sëriñ Mbay Buso ma ngi koy laaj nag tolluwaaye foofu mu nekk nag ci tundu Kajoor woowu nag nu mu demee mi ngi koy xamal ne Tuubaa itam nag mi ngi ci jàmm ak salaam lettre bi itam nag gis naa ko am na lettre itam nag bu ko sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul bindoon ci bi doomam ji nag di sëriñ Moustapha Mbàkke mii ko wuutu nag feeñe jamono sëriñ Abdou Xaadir nag di ko xamal ne tur wi nag bala nga koo tudd laaj ko nag nag sa waajur wa nag ba xam na kan nag lay jubu loola itam nag la ci sëriñ Abdou Xaadar Mbàkke jublu woon mooy taawub sëriñ Abdou Wahab Mbàkke sëriñ Abdou Xaadar Mbàkke moom nag la ko tudde woon daa génnoon àdduna xam naa sëriñ Abdou Xaadar Mbàkke nag doon bañ itam nag mu fa baat tur wii di turu sëriñ Moustapha Mbàkke wii itam nag waat ko ko moo tax itam nag mu doon ko xamal ne laaj ko sa waajur nag ba noppi lum la ca wax rek noona la ak yeneen ak yeneen di lettre nag yu mu séqoon nag mag ñi tàgguk sëriñ Abdou Wahab Mbàkke ay mbind yu takkoo takkoo takku nag ci wàllu ay lettre nag yu nag yu mu séqoon nag ak yoonu murit wi gis naa fa itam nag leetarub sëriñ fàllu mbàkke bu mu bindoon sëriñ Abdou Dia mbàkke Duyooli di ko laaj nag ay addiye nag ci jumaa ji gis naa fa itam nag leetarub sëriñ Abdou Dia mbàkke Duyooli bu mu bindoon nag cheikh Mamadul Faadal mbàkke di ko jox itam nag xarum tabaski gis naa fa itam nag yeneen nag yeneeni lettre nag yoo xam ne nii mbiri biir la nag yu sëriñ Abdou Wahab nag séqoon nag lenn nag ci ay kilifa ku doon bindanteeg kilifa yi la ku doon ñaanitim nag la gis itim rek yaa koy bind fanweeri at ak juróom nag la dund génn nag àdduna moom sëriñ Abdou Wahab Mbàkke nag mu ngi génn àdduna ci feebar nag bu ko tëral ci dëkk boobu ko waa waajuram nag yóbbu woon di kër Amari Kumba ñu gën koo xam nag ci Mérina Gueye dëkk boobu nag la ko feebar nag tëralee sëriñ Abdou Dia Mbàkke Duyooli yabal nag magam nag sëriñ Saaliwu Mbàkke ngir mu dem nag jëli ko ginnaaw bu ko sëriñ Saaliwu Mbàkke nag jëlee ci dëkk boobu nag di kër Amari Kumba ñu gën koo xam nag ci Mérina Gueye 1953 biñ ko indee nag ci kër sëñ Abdou Dia Mbacke Douyoly nag gi nekkoon nag ci Touba bàyyi ko fi nag ab diir la sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly yëg ne daal gan ñi ñëw màggal buñ ñëwee nag danañ laaj nag sëriñ Abdou Wahab Mbacke nag lu lay dal ak coowul gan ñi la ko jëlee nag Touba nag yóbbu ko nag Mbacke Bawal ci kër googu nag mu fi amoon nag moom sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly ci Mbacke xewar kër googu nag la sëriñ Abdou Wahab Mbacke nag génnee àdduna ci ginnaaw buñ màggalee nag 18 safar ci 1953 nag ba pare sëriñ Abdou Wahab Mbacke nag mi àdduna nag ci mbàkke bawal ci kër waajuram nag sëriñ Abdou Dia mbàkke duyooli ci quartier bi nag di mbàkke xewar ci bisub ajjuma ñaar fukki fan ak benn nag ci weeru safar ci atum 1373 nag ci gàddaay gi ajjuma ñaar fukki fan nag ak benn ci weeru safar ci atum 1373 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy vendredi 30 octobre 1953 vendredi 30 octobre 1953 ajjuma nag ci yoor yoor nag la génn àdduna waajuram nag sëriñ Abdou Dia mbàkke duyooli yëgal ko nag ki fi nekkaloon sëriñ Touba Cheikhul Khadim di Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbacke Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbacke itam nag moo sàkku itam nag ci sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly ñu denc ko nag ci wetu ñaari maamam yi ci Mbacke xewar muy sëriñ Maam Mor Jaara ak sëriñ Mbacke Soxna mu sàkku itam nag ci rakkam sëriñ Abdou Khader mi nga xam ne nii itam nag moom la sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly nag jébbaloon doomam ji nag di sëriñ Abdou Wahab di ko wax ne daal na dem nag jullee taalibeem boobu sëriñ Abdou Khader ko jullee ñu denc ko nag ci arméer yi bu soobee ca wetu ñaari maamam ya nag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 waajuróom nag ci duyool bis boobu itam nag danañ ko ci fàttaliku waale moom doomu sëriñ Abdou Dia Mbàkke duyooli bi ñuy ñaan ca sëtub Mbàkke ba doomu sëriñ Abdou Dia Mbàkke duyooli ba te Cheikh Faadal sàkku itam nag ñu denc ko ci wetu ñaari maamam ya yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey kam jébbaloon boppam nag di Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul amiin